asalaamaaleykum mbokki internetu Dakar live TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen comme saa su nekk rek ni ma koy defee mbégte lay doon jàkkaarloog yéen ci euh, Dakar live TV tey nag ma daal di ñëw fi nga xamante ni moom moo di midina daal di seet nag artiste bu nga xam ne euh, kenn dootu ko présenté mu daal di nekk nag doomu Medina waa midina bëgg ko rawatina waa Fass euh, mu nekk nag Youssou Ndiaye dañu koy daal di bàyyi rek mu daal di nuyoo su ko defee ñu dugg ci waxtaan borom cas Youssou maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay ziar di leen wax di leen bëggee di leen tiitara. soxna si kaay nga baal ñu rek teel ñu xale bi comme ça ñu mën a. ayca naa la. waaye maa ngi lay bëggee soxna di la tiitaroo rek. sant yàlla rek. Youssou lan ngay waaj des ñu ngi ci décembre de at bi léegi mu jeex. non Nourou laa mi ngi waaj a génn. Ah waaw. Nourou laa single clip. single ak clip. waaw. d'accord mais Youssou euh, dañ la gëj a gis gëj la dégg euh, sénégalais di laaj ci lan nga nekkoon depuis bi nga jógee confrontation kenn dégga la. tey eh, ñu ngi ñu ngi si ñu ngi si bagage de affaire il faut ngay raar nag gars yi nama la waaw. mais na raar. de raaruma léegi bagage yi tàmbali na. léegi chaque jour su rek hmm? di ko yëngal rek. chaque jour fan ngay faral di joué. non Mbaye Diallo joué hmm. suba na ñu ngi dem Liberté 6 en face match football. suba ah. waaw. amul entrain consommation la rek. nga ne lan. waaw suba dina yëngu de. mais yow Youssou est-ce que xam nga ni da nga da nga réew mi yow yaay artiste bi nga xamante ne presque bokk nga si ñu mujjee ñëw ci côté euh, Pawlish ñëw dépassé ko dépassé ki nga xamante ni moom moo di Ouzin Keita te jamono ji yow yaa nekk seen kaw te yow yaa mujjee ñëw. waaw ñun xale lañ nag dañuy jàng. dara yàllaa ko dogal rek. Mm-hmm. di jàng rek. d'accord nga ne entrée bi consommation lay suba circonse la ay parrain ak ay marraine. suba ñëppay ñëw. Hmm? waaw kon lan ngaa yëngal foofu. suba du yomb. d'accord mais man Youssou leen moom ma jaaxal euh, ci yow ndax gis nañu artistes yu bëri maanaam suñu soog a tàmbali dañuy sonn dafay metti mais yow da nga jóg rek waa Medina boot la lu waral loolu. non waa Fass la Fass la ñu ñoo ñuy dooleel. di di ziar waa Fass fépp. Gueule Tapée bàyyiwuñu ñëpp di leen bëggee di leen wax yàlla na seen jàmm yàgg. dara dama dañ maa bëgg rek ma bëgg leen. loolu la yàlla doon. nga yëngal. di yëngal ba mu saf. Uh-huh. du ma dara. Uh-huh. ci ci ñi nga xamante ne ñoom ñoom ngay àndal maanaam say ndaw li daal. ñoom El Hadj Djibi di leen gërëm ñoom Tamba gaayam aw ma seen fay. Uh-huh. waaw d'accord mais eh, mais euh, gis nañu euh, bi nga xamante ni euh, ci nga génnee woon cas bi ba léegi gisaatuñu Youssou njaay sénégalais di wax ni dafa yàgg boobu ak léegi am na un an wala mu jege ko lan moo tax cas bi ba tey amul rek. te am na yi war a génn dañ koy nëbbal ak studio lu tax nga koy nëbb. day génn léegi damay xaar ñoom waali génneel ak ma waaw yu bees tàkk mi ngi génn si marché xaar leen ko. Mm-hmm. d'accord lan moo tax nga bëgg a xaar ñoom waali seeg. non damay xaar gars yi génnee ma soog a génnee yàqamtewu ma ko semaine bi la ma sànni man misaal laay xaar la moo ko war a clip. Mm-hmm. d'accord mais Wally Seck génnee na ba pare de. man damay génnee semaine bi ah waaw. nan nga gisee albumu Wally Seck ak ki nga xam ne moom moo di Pape Diouf est-ce déglu nga ko. kontaan rek Pape borom baax la. damaa dem soirée mu yëkkati xaalis bëri jox ma ak Wally di ko ñaanal mu yàgg fi. séeri soxna ay dara karaara. Wally Seck may na ñaata la may. moom 100000 sama waay. Ah Pape Diouf ñaata la la jox. moom 50 bi. Ah. yi temps yaa ngi laal de. ma dara. <laughs> ah yaa ngi laaluñu ah, dara. <laughs> sànq war naa la ko eh, nga ne cas bi eh, yaa ngi yaa ngi waajal yaa ngi waajal lu nga xamante ni moom mooy nekk rakku cas mais gis nañu eh, sortie yi nga xamante ni def nga ko yëpp da nga doon wax ni yaa ngi wàcc boobu ba léegi gisuñu lan la problème mu mooy la wala lan mooy problème. mooy la la ñuy xaar pare nañ ñun rek laay xaar ñu song affaire yi jolli. ok waaw est yaa ngi am ñu nga xamante ni ñoom ngay waxal ñu nga xam ne ay label la ñu yore. gisaguma ma ay xool daal label yi mhm. gisaguma mais yow yaa war a xool wala da war a xaar ba rabel yi woo la. non damay xaar ñu woo ma damay nekk sa rukk rek di liggéey ba ñu woo ma ma dem ma dem signé. mais am na si ñoo xamante ni ñu ngi waxtaan ak yow. de label woo guñ ma. waa woo moo tax defoo démarche yi pour xool label yi nga xamante ni di nga mën a nekk ci ñoom liggéey ak ñoom. de dinaa dem bu soobee yàlla mhm. waaw. label yi nekk Sénégal euh, ban label nga jàpp ni euh, Youssou Ndiaye mën na liggéey ak moom diggante presse art ak li nga xam ne moom moom di Faramareen musique ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Subateer ñan nga jàpp ni euh, mën nga liggéey ak ñoom. man mun naa dem fee ne presse art si ñoom góone ah? bëgg naa dem foofu de waaw. lu tax nga taamu presse art. presse art dara wala Subateer si ma ko man daal pare naa maa nii. kon daal ku ñëw rek nga ànd ak moom liggéey. d'accord euh, gis nañu euh, ki nga xamante ni moom moo di Youssou Ndour euh, bokk na ci ki nga xamante ni dafay tiitaroo Medina lan moo tax gisuñu gisuñu mu mu jàppale Youssou Ndiaye lan mooy problème bi parce que Youssou Ndour doom Medina la. daa war a jàpp si bagage yi mooy suñu père daa war a jàpp si bagage mm-hmm. waaw. est-ce que d'accord Mbaye Dièye Faye nag parce que gis nañu euh, fi nga xamante ne moom moo di Fass fii lay tiitaroo euh, est-ce que mi ngi def ay démarches pour jàppale la parce que nag soxla nga ko jamono ji bëgg naa ko affaire daal ko si euh, a jàpp mm-hmm. waaw di ko rek di ko mu am jàmmale suñu père bi seeri ma waaw am nga ak ñoom relation waaw ñooy nekk chaque jour ah mm-hmm. suñu père la mm-hmm. waaw est-ce que yomb na gis moom Mbaye Dièye Faye ci sa côté yow man yomb na gis chaque jour ñooy ne Fass ngéwél séer maam Ndiaye. Mm-hmm. ban témoignage ngay def si moom. di ko wax mu am jàmm rek. waaw yàlla na jàmm am yàgg. waaw jàmm jàmm ji daal di euh, d' accord Ndiaye la ñu dalal tey internet euh, Dakar Live TV mais nag Youssou euh, du ma ñëw toog ak yow ba jeex te du ma wax ci sa diggante ak ki nga xam ne moom moo di Ouzin Keita ak ki nga xam ne moom moo di Pawlish def ngeen yéen ñaar son def ngeen kilib bi bi dañ jékki-jékki gis ko kan kan moo produire clip bi. biisu biisu ngoone di ko ñaanal mu yàgg fi. Ah, waaw di ko ñaanal mu yàgg fi lépp moom la ñu ñaar ñoom ay grand ñooy nekk di waxtaan. ak Ouzin àdduna amul solo àdduna lépp taraanga la. maanaam ay waaw. ay xarit lañ la àdduna. mais clip bi nu mu demee yéen doon solo seen bopp wala dañ leen solo. ñoo solo suñ bopp Pape Pape Dije moo ko def. ah bon bii defal waale clip. tubéy bu noir boobu tamit Youssou toj nga clip bi de. naa ko waaw. tubéy bu noir bi lu tax sol dara ay fem nag ay séance. nga xool ko xam ne tubéy jii xat na la yem na sa jeune yi nga sol ko pour comédie la wala. pour comédie la rek. Ah, d'accord mm-hmm. est-ce que am nga xaalis euh, ci ci clip boobu. amaguñu ñun dañuy jàngale. mais bisu fay na leen xanaa. dinañ jox affaire bi du xaalis utal nit rek xaalis bi après la. kon clip bi ñu leen si dara. day jox fayuñu bisu dañuy bëgg a jàppale la suñu xarit la. dañu bëgg a jàppale. waaw maanaam dafa ñëw yóbbu leen studio moom moo fay studio. moo fay lépp. fay clip bi aussi d'accord bi mu paree lan la leen jox. yëkkati na xaalis ma. waxoo lool de. na ma xaalis bàkk ah. ñaata la la jox. cent mille yooyu noo ko def. waaw dama ko dénkaan si compte <laughs> parce que dangay bañ bu dem am lu ma yóbbaale moo tax dénkoo ko ci benn compte man xam naa la. non si non si compte bi laa ko denc waaw. Uh-huh. d'accord sa relation ak Bijou Ngoné lan la à euh, li nga xam ne moom moo di milieu bi ngeen seq. dara daa am moom borom baax na rek bëgg ma rek ak dëjë xësaa di leen ñaanal ñu yàgg fi waaw ñu ngi ñu euh, jamono yi ñu passé euh, gis nañu ki nga xamante ni moom moo di euh, DJ Xassa mu daal di lay invité ci plateau ba mais dañu seetlu leen moom Youssou Ndiaye ba mu ñëwee dafa indi maanaam fukk yëre ak ñaar mais lan moo waral yëre yu bari yooyu. dara pour yokk bur yi rek. Ah, bës moo taxoon nga sol waaw léegi yëre tubaab rek. su Louis rek osé osé. waaw. mais loolu loolu loolu ko defee amul amul euh, coono yu nga xamante ne daj nga ko ci parce que du benn yëre du ñaar fukki yëre nga sol ko ci sa yaram. non le bàyyi naa ko yëre tubaab ah, mhm. mhm. ak kan. yaay ngoone bu ndaw. Mhm. séeri aaw. mais Youssou euh, man li ma jaaxal mooy sa soirée fees ki muy fees lan moo ko waral nit ñi lan moo leen fa yóbbu dañu bëgg a ree wala dañu ñoom dañu bëgg Youssou Ndiaye wala lan moo tax ñu ñëw fa parce que loolu jaaxal na ma aussi Youssou di wéy nii rek nga toog di ko xool. non ñaanu waajur sa yaay ba la sampal la da ngay dem lépp mère bi la di ko ñaanal mu yàgg fi di ko ñaanal borom këram bi fu mu tëdd yàlla na gis Mouhamed Pa Assane ñu ngi koy ñaanal fu mu tëdd sa yoof yàlla na gis Seydina Mohamed di ko ñaanal rek mu yàgg fi. maire bi suñu yaay yaay ngoone guddal fan. mais Youssou lan moo dugal ci musique. dara dama si yàgg nag. ñaata at yaa ngi ci. na de di ànd ndax hélas jibi sëy ñu yokk ma fit moo tax ma dugg si hmm. waaw. bi am na leneen loo xamante ni yaa ngi ko doon def. da nga doon xëy di lekk ceeb tëdd. waaw may lekk ah waaw. d'accord mais Youssou euh, yow maanaam ce soirée booy booy dugg si nan ngay def ak lan ngay wax. damay léemu ak yéeg ànd ak sécurité yi ñëw ak ambiance dab sama yoon. Hmm. waaw ban façon ban façon ngay woy ci sa soirée. ma ne heure bu baax bi jot na temps amatul. appelal ma benn une minute boo xamante ni sénégalais yi dinañ xam ne kii euh, vraiment am na talent parce que émission bi euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor seen ay maison de production dinañ ko seetaan pour bu fekkee bëgg nañ la produire appelal ma benn une rek télé bu xew si jamono moo xew man Youssou bëgg naa leen di leen tiitaroo ba ngeen jàppee ba tey bàyyiwu leen en ah, lelelele way bi yooyu nooy borom mi wóolu naa wóolu naa sama jigéen bu rafet ak sama karamamaan bu ñaawul sama journaliste kenn du la téye da ngay dem yow daal lii ngay wéy rek bas ba toj waaw teg orchestre bi waaw mu yëngu ba mu yëngu ñu pëtal galañ yi. Youssou say soirée kan moo ci dimbale ci ci ci côté euh, ci côté financement parce que ku nekk xam na ne maison euh, fi nga xamante ne fa ngay tëggee soirée moo xam boîte de nuit da ngay fay balaa ngaa dugg kan moo nekk si ginnaaw Youssou. man maay maay lijjanti lépp affaire yi ñun Fass lañ dëkk affaire sot la Medina Fass par avance sot la moo tax ma dugg si. Mhm. bëgg imposer. waaw mhm. suñ jógee fii ñu ngi war a dem Mbour de. Ah laay dem. si vacances yi yëngali waaw après ñëwaat Dakar yëngalaat waaw. d'accord mais xaalis bi ngay tëgg ci soirée boo paree noo koy def jox mère bi rek. jox yaay. waaw mu ñaanal ñu affaire yi gën a yokk. Mm-hmm. mais mais Youssou sénégalais nemmeeku nañ leen si yow maanaam danga danga bëgg sa yaay euh, foo toog da koy tudd euh, foo toog da ngay wax ci moom euh, sa relation ak sa yaay. suñu xarit la nag suñu mère la kañ moom la am di ñaanal rek mu yàgg fi. bañ koy yóbbu mu ziyaare nabi ba ma koy yóbbu di ko jox billet avion mu dem ziyaare nabi yàlla na ko yàlla def. ma mu ne ko suñu yaay a ngi noonu. aka bëgg sëriñ Babacar si Malick. Ali Boy Ali Boy Moussa Sambay naat la yaakaar suñu yaay ngóone. yaay fajjo bay yaayam. lépp mari maram ndooy yaay fajjob la ñuy woowee yaayam. am na mag bu ñuy naan jaga séeri xujja séeri xujja macha allah eh, dégg ngeen dégg ngeen ba sa baat nag dafa neex de. xaaral woo bu ñëw. <laughs> <laughs> voilà internet yi ñu seetaan ci Dakar Live TV gis ngeen tey eh, Youssou Ndiaye la ñu dalal ci dakaar Live fas yéene waxtaan ak moom eh, dégg ngeen nag kàddu yi nga xamante ni moom la fi jot a yëkkati ndax woy na yaayam woy bu neex a neex mais Youssou foo demoon. non kii laa bëgg mu ñëw toog wax ay dëgg kaay toog. ay ay ay dëgg dina ñëw mais après émission bi lay doon. waaw ah, Mouhamed loo ñu may ñu def suñu émi. ayca bébé Mouhamed nañu may bébé Mouhamed kaay taxaw ni après voilà léegi ñëwal ni ñëwal nii voilà léegi yow taxawal nii après incha allah ñu ñu jël la émission du noonu ayca Youssou. waaw ah. ñu ngi xaar daal contrat projet yaay ñëw daal. léegi bi ngay waajal ban son la ban façon musique la R&B zou salsa reggae lan la. non son nuru laa la xam nga Jamil sama waay la. mbalax la Jamil Samba ba mu jàppee ba tey bàyyiwul borom nóoru la moo tax ma ne nóoru laa bu xew si jamono am na odakaay am na fépp ku si bëgg rek demal si odakaay ba mu jàppee ba tey bàyyiwul sama waa ji Jamil di ko bëggee borom Pikine. d'accord euh, mës nga def si mbugaay. déedéet. lu tax mosoo ko def parce que ñenn ci ay sénégalais jàpp nañ ni euh, am nga foofu place lan moo tax def loolu. dara maa dugg si suuf bis bu rek. waaw. am na solo Youssou euh, ñu ñu tëjee ko ak li nga xamante ni euh, moom la ñu nemmeeku jamono ji euh, gis nañu li nga xamante ni moom moo di actualité ci ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr Youssou noo jàngatee Adji Sarr. aji Sarr mu gën a góorgóorlu rek bàyyi fu fooyee di ko wax at na amul solo na nekk jigéen rek jigéen yaay am sa fulla diñ te sa kër yaay ba mayee la xale bu si réglé wul nag buñ la mayee doo sëy rek. nga ne xale ba si rek leewul buñ la maye doo sëy léegi xale yi bëggul ñu sëy dañaa war a sëy. kon jàpp dafa war daa war a sëy bàyyi affaire yi muy da d'accord diggante Ousmane Sonko Adji Sarr yow yow lan nga nan nga ko jàngatee noo gisee eh, li nga xam ne moom moo ci jot a am. lu ma la ma si dara bàkk yàlla. xamoo Ousmane Sonko. déedéet. Ah, Adji Sarr nag. xaw ma ko. maire bu bees bi daal suñu maire bi Aziz Paye Paye yaayu sooy la tudd. Mhm. mooy maire Fass. di ko béggee Aziz Paye mais dégg nga audio yi nga xamante ni moom moo jot a génn ci diggante Adji Sarr ak MC Niass dégguloo dégguma ko de déedéet mais Adji Sarr war nga ko fenk fental wéy parce que sénégalais yëpp xam nañ ko jamono ji est-ce que doo ko fental wéy yow Adji Sarr yaa ñu la jël te ngaa réglé te nga toog te naan café te tëddi Adji Sarr lakkal ngi tëj dëkk bi war nañ sa wax yow Adji Sarr la jël jànk ba si bi Adji Sarr la yow doo rek la yow. am na solo Youssou Ndiaye internet Dakar Live TV kan mooy waxaat. ay tëggee caat. mais mais Youssou kaay bul dem Youssou Youssou ñëwal kaay ñu tëj ñu tëj suñu émission xam naa ni danga yàkkamti jamono ji amoo temps mais jaabante lu mu doon. dara. Kéba balaa war a dem centenaire. Kéba bi. Kéba laay seetaane. waaw kon yow da nga xam Kéba Seck. sama waay la. kon soo eggee da jox micro. waaw. waaw. déggoo mu ne soo bëggee ay way xale yu fas seetil Youssou Ndiaye. waaw. waaw. ma bë leen. wàcc leen si suuf. ñaan jàmm yaa yàlla na jàmm yàgg télé bi di nekk télé yi télé si bakk Seydina Mohamed di la bëggee kontaan naa si yéen yàlla na seen jàmm yàgg. Youssou am nga soxna. amaguma. amagoo na damay xaar ba si kanam. am soxna kay teel. non teel na da nga nekk di liggéey nii rek jël xaalis bi di ko jox yaay mais soxna daal xalaatagoo. non soxna teel na ba si kanam. ba am si oto yee rek. comme Pawlish Mbaye waaw d'accord mais ni muy def noo ko gisee liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey moom <laughs> moom day wayaan mm, moom borom baax la sama waay la di ko ñaanal mu am jàmm waaw d'accord ak moom est-ce que yaa ngi déggante moom ñu ngi déggante sax jour mhm. ngeen ànd yow Pawlish Mbaye waaw ñu nekk notre fois de waxtaan mhm. lan nga leen di wax ci Dakar Live TV di leen wax ñu am jàmm di leen bëggee di leen tiitaral Dakar live sa kaw sa kanam télé bu xew sa jamono man Youssou léegi maa ngi Dakar live dee leen ma déglu Dakar live. d'accord décembre bi mi ngi jeex jeex te gis nañu artistes yi ñenn ñu nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk ci seen ay diwaan maanaam bu ñu fekkee defuñu soire euh, dañuy def li nga xamante ni moom moo di tànn béer est-ce que mën nañu mën nañu euh, xaar nga defal waa fas tànn béer invité ci Dakar live. dinaa maye tànn béer bu rëy bala bu décembre bi jeexee semaine bi laa koy def tànn béer bu rëy après rek son yi bees bu génnee rek ma maye tànn béer maye concert ma bientôt. d'accord lan mooy nekk sa sa challenge laa nampé jàppale bi borom oh laa lu bees la gi lu bees la maa fi génne. namp yi namp yi la comprendre luy loolu. laa rek ma naan nampi oh. lan. oh heure bu baax bi jot na temps góor Assane merci beaucoup jërë ngeen fa mbokk internet yi ñu doon seetaan ci Dakar Live TV ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal tey nag ñu dalaloon ki nga xamante ni moom moo di Youssou Ndiaye moom dafa mel ni rek dafa am lu koy jam ndax toogaay la mënul saa su toogee rek uh, bu yàggee dafay jugaat topp topp doo bàyyi ñi ngay dàq ji. dégg nga leen di tax waa télé bu xew sa jamono dakaar Live directeur bi lu mu tudd. Mhm. maas directeur di la ñaanal nga yàgg fi rek te wér borom Dakar live di la bégee di la tiitara aw ma aw ma sa fay maas yàlla na sa jàmm yàgg télé bi di nekk yeneen télé télé télé. yàlla lan ngay tàggoo ñi lay seetaan. ñu di lay te bëggu la am xarit jafe na yenn saay Dakar bës ñëw woo. Dakar live waa Dakar live woo ma ma daal di ñëw aw ma zone fo waaye nday ma demee nii kaay Pape Souley mooy sa baay yaay ngoonay sa yaay man de bëgg naa la lool di la ñaanal nga yàgg fi ba nga dem ba yóbbu meer mu ziyaare nabi waaw yàlla na jàmm yàgg kontaan na di jox caat na mu wax kii mooy taaw bi ma dem kaay toog wax Aïcha merci beaucoup ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal mbokki internetu Dakar live ñu leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal tey nag ñu dalaloon ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndiaye fekk ko fii ci Fass yaakaar naa ne nag kàddu yi nga xam ne jot ko fee yëkkati am bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal di sant bu baax sama caméraman mbokki santaat leen bu baax yéen ñi nga xamante ni yéen ngi safoo ndamoo Dakar live TV di leen jox rendez-vous rek à très bientôt keneen ku may dalal jërë jëf soxna si nuyu naa la maa lay bu baax Ngone. ñoo bokk benn yaay moom mooy suñu taaw. mais Youssou bëgg na la sànq ba tey mi ngi lay woo. <laughs> Ah, man normal may caatu kër gi. <laughs> ban témoignage ngay def ci Youssou Ndiaye. ah Youssou de moom moo ngi rek wax dëgg yàlla nit ku bëgg nit ku bëgg ay nit la moom wax dëgg yàlla moom nitu nit ñi la da bëgg na nit ñi baax na amul benn problème tamit. d'accord naka ngeen nekkee ak Youssou Ndiaye ci kër gi. ah jàmm rek moom amul ak kenn problème jàmm ak salaam rek la sekk ñëpp mm-hmm. xale yu ndaw yi sa jàmm ak salaam rek. neex na neex na yéen dool est-ce <laughs> ah Youssou de moom moo ngi nii rek xam nga rek kon ma nga rakk rek ci kër mooy loolu mais amul benn problème moom problème boobu amu ko. <laughs> moom nee na teral yaay rek moom moo ko ñor teral teral yaay rek la bëgg euh, kàddoom yooyu ngeen nekk ay ay rakkam noo leen ko jàngatee est-ce que li nga xamante ni mu ngi koy wax mu ngi koy jëfee. ah mi ngi def daal li mu mën xam na rek mooy loolu nit moom ak bëgg-bëggam ñaan yàlla rek yàlla jàppale ko si ndaxte moom mi ngi def moom li mu mën li moom mi ngi koy def macha allah. lan ngay wax Youssou Ndiaye tey. Ah, di ko woo rek mu góorgóorlu. gën a peese rek ñu koy xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko lu gën incha allah ba lu muy séntu yëpp mu jot si waaw merci <laughs>